Bendo euh, ban jàngat ngay def ci nga xamante ni xew na procès Sonko ak Adji Sarr rappelé que ñu nag procès la bu xamante ni depuis loolu nit koy xaar affaire bi yàgg na pratiquement euh, léegi mu man ñetti at bi Adji Sarr di poser plainte euh, ni Ousmane Sonko da ko doon sàkku fekk it menace de mort gis nga lépp li nga xamante ni xew na ci ba finalement yëpp yi yóbbu ko chambre criminelle ñu war a jëm ci procès finalement démb procès bi am na mais procès bi démb façon bu ñu ko tenir Euh, sur le fond et la forme ban gis nga ci am waaw façon bi ñu ko tenir c'est un procès qui qui s'est déroulé tout à fait normalement même si c'est un procès exceptionnel parce que ça concerne surtout euh, un accusé justement qui est euh, de, de, de, qui a un certain niveau ou un degré non seulement qui est un politique mais avec un certain euh, niveau de sympathie euh, par rapport à une certaine partie de la population ah donc euh, donc muy Ousmane Sonko. Euh, euh, moo tax projet bi sax coow gi bari nii moo tax yu bari am ci guerre d'opinion bi am xam nga combat bi fii jaxasoo bi ku nekk di accusation yi fii par ci par là des audios vous entendez tout et n'importe quoi en même temps parce que tout simplement c'est un monsieur boo xam ne il est d'une certaine réputation euh, par rapport à la politique sénégalaise et que forcément il dérangeait énormément euh, le camp d'en face qui est au pouvoir donc loolu aussi gars yi forcément Euh, day am écho non seulement ci Sénégal ak ci àdduna bi mais aussi day euh, euh, des des gars yi ils feront tout comme c'est de nature chez nous en politique en Afrique en général au Sénégal en particulier ñuy ñuy ñu bu bu ñu jàppee nit ci benn poñ jëm ko si poñ yaa jàppee nit si benn poñ di def tout def seen kaptalaay kàttan pour saccager ko définitivement politiquement et ça je trouve que c'est malsain mais en même temps aussi ce n'est pas interdit parce que tey jii Euh, euh, ku ñu gis ci yow ci homme politique sa bu gisee yow loo xam ne mënu na la faagagal pour que yow mi koy déranger wala yow mi ko am côté boo xam ne da nga ko fa mënee ci wàllum les populations mun na ko mun na ko gàllankoor mais da nga def pour mu gàllankoor ko ndax yow nga gën a mën a avancer politiquement parce que on ne fait plus de la politique par sacerdoce dans ce pays en général on fait de la politique tout simplement parce que on veut euh, arriver au pouvoir et bénéficier des largesses du pouvoir moo tax xeet bi wute oui mais un procès procès bu nga xamante ni pratiquement euh, li lépp luñ koy waxtaanee démb mais choqué na ñu bëri ba ñu bëri sax démb quitté salle bi dem parce que nee nañ loolu mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko fekkee mais loolu également loolu ndax ànd na ak ñun Sénégalais li ñu baaxoo di gis ak suñu culture ak suñu nit ñu yere nit ñu mooñaale te ji bu ñu déggee euh, l'accusé aji Sarr démb toog te tribunal ba devant toute l'assistance mm-hmm. mais avec euh, avec euh, vraiment des propos nu Ah. mais loolu amoon ci ci ci tribunal démb loolu choqué nañu bëri. ah dina choqué parce que avant lu euh, ma wax ni amul woon parce que certainement amoon na parce que des cas de viol y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité encore euh, au Sénégal donc donc c'est loolu amul mais aussi il faut qu'on <laughs> reconnaisse une chose on est euh, on, dans le cadre d'un procès procès la te procès accusé ak euh, l'accusateur ou l'accusatrice ñu am seen i avocat euh, am un processus boo xam ne moom moo existé du début jusqu'à euh, jusqu'au procès jusqu'au jour du procès maanaam instruction bi machin les témoignages tout ce que tu veux li nga xam ne moom moo jaar yëpp ba jour du procès il faut que bu boobaa bu ñu toogee il faut que ñu wax il pose des questions il faut qu'on pose des questions il faut que ñu laajte il faut que ñu ñu ñu ñu ñu xam te pour xam nag vous êtes obligé de, de, de, poser certaines questions ko surtout quand il s'agit justement de ce que les autres euh, euh, appellent le procès moral et que beaucoup ñoo xam ne dañ ci xaw a jaaxle parce que dañu naan oui c'est un procès moral mais mënul nekk leneen loolu procès moral c'est d'une évidence parce que ça parle de quelque chose boo xam ne euh, dafa xaw a waar ñun comme ni ko waxee ci suñu culture parce que ça parle de d'intimité des des des gens en général donc forcément c'est-à-dire dans ce que là est-ce que xawuñu rejoindre gis-gisu ñenn ci patriotes yi ñenn ci Pastef yi nga xamante dañoo yàgg a gis ni procès bi euh, jubluwuñ ci dara lu dul rek fexe ba dénigrer ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko fexe ba kase li nga xamante ni moo di gis-gisu ñenn yi nga xamante ni dem nañ ba jàppee ko procès mu sell bi bu ñu déggee dem lépp di nga xamante ni la euh, la plaignante di Adji Sarr yëkkati na ko fa. mais franchement euh, Penda akulaay tala est-ce que c'est mais parce que parce que ils en profitent dañuy profiter ci situation bi pour pour pour pour pour gën a décrédibiliser la personne bi nga xam ne dafa nekkoon ci benn voie euh, ascendante euh, en route euh, éventuellement vers le palais et donc c'est une occasion de le détruire définitivement moo tax question bi kay baax na mais nag li ñu war a wax mooy est-ce que boo nekkee ci yenn position ci wàllum politique. est-ce que war nga permettre sa bopp di dugg ci yenn béréb yi ba ñu lay fay accuser ay mbir. oui loolu dinañ ci ñëw. loolu parce que dafa am am nii nii c'est parce qu'il a quelqu'un qui est parti nee na dafa doon massage thérapeutique la waxoon lay def foofu mais wax dëgg yàlla euh, akulaay taala encore une fois parce que ou je me tais ou je le dis mais si je me tais je continuerai à le penser parce que c'est d'une évidence ñëpp am nañ ni ce n'est pas foofu du massage thérapeutique lañ fay def leneen moo fa nekk euh, ragal yàlla quoi ngir yàlla war a suuli xam nga du du pour loolu Penda xam nga donc erreur la ça peut-être que ça m'est arrivé moi peut-être que ça aurait pu m'arriver peut-être que am na ñu mais coow li coow li coow mooy il s'agit euh, d'un monsieur qui s'appelle Ousmane Sonko moo tax toujours je déplore certaines choses et on me critique nee naa leen ici en Afrique au Sénégal en particulier un un, patron un, de parti c'est lui moom mooy le patron du parti moom il surveille tout le monde mais personne ne le surveille dans le cadre d'un projet yu demee nii lui bu fekkee dafa toll ci benn niveau ñu bëgg ko def en président la République dafa am yoo xam ne il doit plus se permettre te dafa am yoo xam ne dañ ko ko war a préparer préparer ko moom pour mu nekk président de la République dox doxin bi sax ak waxin bi daf ko war a changer il doit pas se permettre de dire ce qu'il veut ou aller n'importe où ou di dem moom kenn ci ay béréb dañ ko war a protéger ko surveiller il à sa femme et à ses enfants parce qu'il a choisi de euh, de famille du Sénégal. mais dans ce cas-là su jàpp ni peut-être erreur bu mu def mais dans ce bu dee erreur la bu mu def euh, naka nga gisee ni wala boog euh, loo jàpp ni tey jii waroon na ko doxalee ba mbir bi bañ fii bañ a bañ a bañ a yegg si fu mu yegg si nii parce que ñëppay juum. parce que mënoon na waxtaan ak. xanaa mënoon na waxtaan nag waa waa kër kii mais déjà au départ je ne sais pas si vous en souvenez xam nga aussi man damay wax parce que man aussi mënu ma wax damay noppi moom xalaat ko jàpp sama mais bu ma laajee aussi je dis ce que je pense je pense que li may wax ni est-ce que dina mën a dañ parce que le gars aussi au départ moom Ousmane Sonko il avait dit au départ tout de suite bi ko accusé dafa bind ci page Facebook nee na moom mosu dem Après, bon, ils l'ont effacé parce qu'ils ont compris que ce n'était pas une bonne idée avec sa communication. Eh ils ont changé, ils ont dit, euh, nous de presse, nous n'avons pas fait mais bi moy juddo ba tay dama am li ak li fatale ko ngeen ni mo yépp par rapport ak euh, problème yu mo am lombaire yi machin ba li mon ci graisse yew alors qu'on sait très bien que yoyu boy pour nga lijeenti ko

il faut dire la vérité quand même c'était une histoire de sous moo tax moo tax demul fi mu war dem surtout que d'ailleurs à l'époque on se rappelle que ah, Ndeye Khady également entretien bu njëkk bi nga xamante ne defoon na ko également moom it dafa ñëwoon ci Sonko euh, circonstance yi mu ñëwee woon suy voté te moom li mu xamle woon moo di Sonko premier jour bu ñëwee sax daf ko ko ndax fii nekk fii nekkul ndax daf ko jaawale woon. ak Imosène te détail boobu dégguñu woon Sonko wax ko ci gànnaaw taskatu xabaar. bien sûr non xam nga il s'est gouré xam nga bu doon tey jii du ko defati comprendre nga maintenant yu mel nii au départ da ngay am des bons conseillers ñu wax la ñu la war a pas ñu naan la nga politiser ko alors que yow xam nga sa sa sa sa akulaay taala li nga def ak li nga deful yaa ngi dégg bon au départ naj nga nee nga du yow xamoo ko mosoo fa dem am na sax ñoo xam ne say collaborateur lañ induire nga leen en erreur parce que am na ñoo xam ne taxaw nañu ci télévision jël seen loxo euh, dóor ko ci alxuraan ne mosoo fa dem ñooñu xam nga am na ñu leen metti aussi maintenant il pour solutionner le problème avant mbir mi doon doon yegg ba fii li nga waroon def mooy ngeen toog ngeen waxtaan avec des conseillers ñu wax la li nga war a def te li ñu waroon def amul lenn lu dul lu dul toog waxtaan ak famille Adji Sarr bi ba ba bu même bu fekkee ne sax dañ ko tooñ mais lu fait sax ñu tooñ ko rek mbir mi di jëm kaw rek loolu baaxul ci moom ndax bokkuñu yoon bokkuñu itinéraire moom dafa am euh, euh, yoonu yoon yoon pour un jour éventuellement nekk président de la République donc loolu même bu fekkoon sax dañ ko tooñ dañ ko def loo xam ne moom yàlla xam na ni defu ko dafa waroon négocier pour coow gi bañ d'accord mais ci loolu. également démb ci démb ci quoi la rek des gens défier sénégalais expliquer leen ni moom deful dara et cetera même wane ni moom man ku sell laa demee noonu ba ñu koy woowee Ousmane Moussel yooyu daf ko waroon arrêté kenn warul woon wax loolu parce que loolu c'était une ironie qui n'était pas à son avantage une mauvaise ironie qui n'était pas bonne pour lui et donc au final là après day tax sax nit ñi gën ne ko waaye je vous montre que ni gars yi seetlu quoi ak yu demee noonu ki ngeen waxu seetlu je vous montre donc yooyu boo ñu ci woon dugg te waru euh, def en sorte que ni gars yi di développer cette façon de communiquer là sell mi machin Seydina ak yu demee noonu parce que yooyu baaxul c'est pas bon et la république c'est pas bu sell mi ku sell moo ko xam. donc dès le départ également soo ko yàgg yëg ci benn kàddu muy complot. ni dañ ko dañ ko bëgg dañ gis nañu juge bi ba mu toogee li mu njëkk dàq moo di la thèse du complot man je l'ai dit il quelques années est-ce que waxuma ko il y un an et demi quand je l'ai dit moom quoi mais j'ai toujours dit que ni complot du lii complot du même définition bi sax du lii quoi munoo dem ci benn béréb ay git ay nit profiter ci benn occasion euh, euh, euh, piège la fa nga naan complot la non ils ont est-ce que profité ci bi lépp occasion doon tani ah? peut-être tu vas me dire la nekk mais est-ce que ñu ñu ci noonu notamment les Mamour Diallo les maîtres Diop ñooñu ci lim ni ña nga ci lim mais le le euh, juge au tribunal au procès a nañ leen c'est pas pour rien a appelés pour pour pour comme témoin parce que ñooñu ci biir loolu c'était même l'occasion moo tax Ousmane Sonko il aurait pu venir ñëw xeex xeex bi quoi cooku ko mu jeex à la à la guerre comme à la guerre wax li mu fa wax yëpp ak li mu xalaat yëpp ak li mu bëgg yëpp ak li tax mu doon complot expliquer ko euh, détails yi ñu doon parce que le combat c'était pas un combat avec l'opinion loolu mun na continuer mais mais déggoon nañ ko d'ailleurs ci seen ay antenne la ko waxoon ñu bañu mais dafa teg ay conditions est-ce que tamit tey ji bu ko condition yooyu tey ji du ñëw oui est-ce d'accord ok ok fera jurisprudence pourquoi pas damay teg sama condition ah, pour fu may jaar pour yooyu noonu et cetera non il faut que ñu moytu loolu loolu c'est pas une bonne idée Penda euh, li def mooy yële moi je pense que ni peut-être qu'il n'était pas dans les bonnes conditions pour dem moom personnellement euh, moo tax teg ay conditions loolu pour man quoi. il n'était pas dans les bonnes conditions pour dem loolu bëgg wax euh, parce que peut-être amul woon argument ju mu défendre boppam wala lan nga xamante ni. moom

c'était pas une raison parce que boo nekkee si dëkk yoon ñu woo leen da ngay dem wuyu ci quoi wàññiwul dara boo demee nga préparé wu yaa ngi am benn espèce su batterie d'avocats boo xam ne ñi ngi fii sur place mais ces gens là bi surtout que des ténors du du barreau sénégalais et même de l'étranger donc ces gens là auraient pu faire en sorte que de manière réfléchie trouver des solutions pour que nga ñëw moo gën tey suba ëllëg bi ba mettre Clédor Ciré Ly sur place Euh, démb ne may leen ma y a un avion à 13 heures je pourrais vite fait prendre l'avion et puis récupérer son cours oui. xam ne alors que vous en avez non quand même car c'est là ñoom xam nañ ni peut-être déjà bu ñu soogandikoo ci source tey li mu ñëwee dafa ñëw ci profilu euh, ki nga xamante ni moo di bi nga xamante ni démb moom moo moom moo géré cette donc euh, ñoom nee nañu il est très réputé dur sévère polocasse également à cheval sur les règles il fait partie de la génération de juges sorti de l'école de magistrature il années, euh, selon toujours euh, le journal. Euh, et le, ce magistrat a aussi fait son stage à Thiès. Donc, déjà, dafa nekk dafa nekk dafa nekk une personnalité bu nga xamante ni moom déjà ñoom ñi yàgg taxaw ci bor bañ ko gisee rek xamoon nañ déjà ñoom tey yëf yi naka la nar a parce que xam nañ déjà ki nga xamante ni moom lañ fi ni demee donc dans ce cas là est-ce que du loolu euh, tey jii moo indi démb. Euh, coow li ci amoon yëpp laataa ñuy démarrer li nga xamante ni moom moo de procès bi. non mbir mi juge bi lu mu dior dior ko finalement par xam euh, nga il est avec ses assesseurs. ñett la ñu wax dañuy toog waxtaan bu ñu ñëwee ba délibéré su dañuy toog waxtaan ils vont rassembler tous les éléments toutes les pièces lañuy dajale ak li li ñu fa wax li ñu waxul li leen jox comme ay dossier muy vidéo muy audio euh, tout ce que vous voulez ay témoignages ay bind ak ay courrier kenn tout dañuy dajalee lépp bu dajalee lépp après par rapport ak li ñu jot dégg de dix heures à trois heures et demie quatre heures du matin loolu yëpp bu ko boolee moo tax ñu jël une semaine ñu réfléchir ñu xool lan moo nekk ci loolu. lan mooy tontu bi mais lu waral également tamit ci loolu grand juge bi dëgër ci taxawaayam. fan la dëgër ci taxawaayam mbir mi du ko renvoyer c'est-à-dire bi avocat yi ba génne nañ ko dàq. Euh, avocat Ndeye Khady Ndiaye également tamit souhaité loolu nañ ko dàq parce que seen cliente jigéen ju wérul la euh, nañ ko dàq ba jëmee jamono ñu gën a am. Euh, li nga xamante ni moom moo di euh, seen gis ci dossier bi mais également am temps u dem jële ji Ousmane Sonko d'ailleurs sax dégg nañ ministre recrédo garantir la kooku ni buñ ko renvoyé Sonko sera là pourquoi tey ji juge bi la différence entre toi mais man man dama yaakaaroon pour le cas de Sonko ak Clédor Ciré Ly parce que danga ma ñaari question mais pourquoi euh, quarante huit heures à l'avance ils n'ont pas réglé ce problème là ak Ousmane Sonko ñoom qui peut le plus peut le moins ku nga ñëw ba ci tribunal bi garantir loolu mais fais le vingt quatre heures à l'avance bu dee yow avocat am nga la mënoon lan la jot a mën ci diggante bi moom sur place au procès quand il proposait au juge que ni ñu ñu suspendre affaire mu dem jëli Ousmane Sonko lan moo changé ci diggante bi vingt quatre heures à l'avance benn fan ci ginnaaw quand Ousmane Sonko décidé que moom du ñëw parce que tout simplement li mu teg bu fekkee ni. respecté wuñ ko maanaam ñu arrêté de barricader sa maison et les environs ba pare ñu bàyyi ko moom mu dox yoon bu mu bëgg pour dem tribunal buñ ko ko lu moom du dem même si waxoon na dina dem parce que dafa war a dem parce que dafa bëgg mbir yi leer moom kay son problème Ousmane ko c'était fexe leen ba bu leen rey Adji saar bu ko karawam bu bu bu bu bu bu manqué benn daggitu karawam ak yi demee noonu téye leen ko bu leen ko yóbbu bitim réew bu leen ko rey bu ko bu ko nopp metti Euh, euh, parce que euh, procès il faut moom ndax man maa gën a am intérêt pour procès bi am moom moo waxoon loolu. waxoon na après mu teg une condition boo xam ne franchement c'est man pour man c'est élémentaire boo koy comparer ak en enjeu moom par rapport à son avenir à parce que son avenir c'est que il peut être président de la République. il est aimé par les Sénégalais une bonne partie de la jeunesse sénégalaise surtout il a un avenir xaw ma ndax 24 la ak moom li mu waroon def mooy préserver loolu waaw léegi lan lañ bëgg la wax loolu moom moo ne léegi moom dootul ay détails parce que pour man c'est un détail dañuy téye mais yàgg nañ ci sa kër yàgg nañ bi muy dem ba passé bi muy génn këram pour dem këram dañ ko barricadé woon ba tey mhm. bi muy dem seeti Mame Mbaye Niang kon la ci diggante bi lan moo fi changé bon pour le cas de Maître Clédor Ciré par rapport à ce a dit dina joxe ay garantie Maître Clédor Ciré eh, eh, lan moo changé ci diggante bi bi muy wax loolu juge bi 24 heures ou même quelques heures avant bi nga xam ne Ousmane Sonko waroon ñëw la veille ñëwul lan moo xew ci diggante bi ba ba ba mu am léegi ay garantie pourtant Ousmane Sonko dafa dëgër ci ay conditions loolu boo tax ñëwul bokk parce que bu dëgërul woon ci condition dina ñëw dina ne non dama doon sóobal gars yi rek ñëw naa maa ngi fi tew naa tey rek laa woon man lan laa mën tey man laa leen ndaw si li muy wax dara du ci. non cest à ci foofu de qu'on pense sincèrement que ni. Sonko su ko leeroon ni demb juge bi day retenir cette affaire que il sera jugé par contumace certainement dina ñëw parce que ku ne xam na ni contumace bi arrangé wu ko dégg naa l'expert électoral Ndiaga Sylla wax ni quand tu es un contumax mu tu perds d'office li nga xamante moom mooy sa carte d'électeur donc et qui perd son carte d'électeur euh, forcément perd euh, euh, son éligibilité oui oui waaw léegi tout à fait waaw léegi moom la kon ah. finalement cas gën na critique mais cas bi gën parce que ñoom loolu seen job la xam nga lan laa comprendre man maître si kaw Ciré bi muy wax wax boobu nee day jox garantie ne ko ñu reporter affaire bi ba semaine prochaine wala euh, moo bi moo xam au moins une semaine pour moom mu garantir ne moom dina indi Ousmane Sonko ci diggante bi la moo changé. waaw ah, man tamit li ma a comprendre foofu dina am mooy ah. yow naka nga mën a xamante ni bu ñu la jugé par contumace peut-être lu bëri dina la yàqal lu bëri ci ci ci yoon loolu tey ji mu bokk ci seen comme ni ñu koy waxee seen projet étape la ci fàllu Ousmane Sonko nga xam ne lii mën na la ko yàqal ba pare nga yàqal ko sa bopp mais est-ce que loolu gënalu ko par rapport ak li mu nar a fekk tribunal ak li mu fa nar a dégg parce que on parle de preuve aussi te xam nga preuve kenn on donne les preuves qu'à la barre dégg nga sax ay nit naan il faut donner des preuves ak yu demee loolu ana preuve yi joxewuñu ay preuve mais preuve yi au-delà du juge qui peut les qui peut les garder sous scellé bu dee preuve am na moom mënoon na ñëw sur place ne li ngeen di wax dara du ci dëgg moom ak sa défense génne leen preuve yi boobaa juge bi mun a demander ñu xool ndax mun nañ génne preuve wala déet. d'accord waaye on peut pas donner des preuves. Oui. pendant que lui il n'est pas là. Ay, eh, donc c'est oui. c'est c'est c'est euh, parce que les preuves yoon moo wax loolu preuve ca mbaar ba rek. preuve bi tamit jaaxal na nit ñi grand parce que bëri na ay nit ñu ne dem procès bi <laughs> pratiquement dix huit heures la durée wala sax ah plus. non non dix heures jusqu'à trois heures. oui te gisuñu gisuñu fenn yoon fu ñu génnee ay preuves si ce n'est que ay wax la. mais xam nga preuve yi. oui. preuve yi euh, ñett ñoo koy yor wala ñaar juge bi certainement moom moom moom ci dossier mi ñu ko jox parce que avant muy commencé euh, liggéey boobu procès bi ñu koy date moom téye na lépp ba dajale ko parce que juge d'instruction bi mu lijjantee kayit yi nee na ko lii mën na nekk ñoom ñu arrêté date balaa ñu arrêté date dajale nañ tous les éléments de preuve bu war a concerner le procès mm-hmm. waaye léegi moom ñoom téye nañ ko peut-être euh, euh, sax xëy na Ousmane Sonko téye na ko mais population bi Ousmane Sonko bu fekkee ni moom on part du principe que ñoom yoruñu ay preuves Sénégalais aussi ne ne Adji Sarr yorul ay preuves waaw léegi bés bu bu fekkee ne da nga bëggoon preuve dëgg dëgg li gënoon a yomb gënu woon nga ñëw taxaw na leen génne leen preuve par force da ngeen koy génne te juge bi c'est l'obligation pour mu génne preuve. kon ci loolu ci tënk erreur monumentale la def démb. c'est-à-dire que mais. ci euh, mun na nekk erreur loo xam ne moo ko tey parce que moo ko gënal. par rapport à ses calculs aussi xam nga yaa ngi may dégg li may wax maa ngi lay dégg bu baax. mu doon ses calculs calcul mu doon man eh, su ma demee foofu eh, man contumace moom ma gënal xaw ma parce que quand bu jëlee risque bi c' est parce que loolu moo ko gënal mu dem di jàkkaarloo xaj na peut être Adji Sarr Adji Sarr dafa génne yenn mooy. fa rappel benn baat ba Adji Sarr waxoon hmm. Ousmane Sonko du mës a jàkkaarloo man ñemewu. Ah, waaw gis nga yaa ngi may fàttali boobu effectivement waaye léegi loolu lan nga si man est ce que loolu est ce que loolu euh, euh, ko. Hmm. peut-être loolu ko gënal affaire yu bari bañ a feeñ j'en sais rien mais euh, c'est vrai que Adji Sarr bi mu waxee finalement li mu décidé bañ a ñëw ci procès bi on se rappelle également bañoon tamit def li nga xamante ni moo di test ADN bi est-ce que lu ni mel du jouer bu baax a baax ci faveur Adji Sarr tey ci verdict bi nga xam ni ñu koy xaar le 9 euh, su ma amee une lecture nii en tant que petit juriste mais franchement loolu la parce que quand boo ñëwul déjà rek chante en votre défaveur. Et on dit souvent qu'il ne dit rien consent. Bah, bah c'est yow lii c'est grave dafa yow da nga nar a yàq sama adduna man man je veux un avenir politique yow nga naan ko yàq yow ba pare ci ay sos non dina ma jaral lu nekk est-ce que dina ma jaral ma yegg procès sax man maa indi test ADN mi jox leen ko an lañ doon wax ni euh, fekk ñu dara ci xale bi waaw léegi du médecin bi moo ne euh, moom premièrement yi mu demandoon ku ñu def ko euh, kii maniw man maniw maniw maniw maniw maniw la. mais man je vais prouver juste que du du moomu ma ko. oui waxi jeex. médecin bi tamit na ni certificat médical boobu du circulé ñu def na boobu moom moom moo ko moom moo ko bind. waaw mais non seulement moo ko moo yu moo moo moo jël affaire ko moom. ci ci laboratoire ba. bi tontu ko ne ko effectivement lii. ay sperme la. c'est ce qu'il a dit. yooyu man damay ñëw taxaw ne man du man moomu ma ko déjà loolu rek gàllankoor na. Euh, euh, yoonu procès bi maanaam maanaam ngay dem si yoon ñu coupé tali bi pour mbir mi bañ a yegg à bon quoi parce que foofu rek déjà rek juge d'instruction bi rek bu ñu ko defaloon juge d'instruction dina douter ni mais man non kii budul bon kam kii lii keneen na ko moom c'est pas vrai waaw léegi loolu lan la man affaire waru. mais question piège yi leen juge bi laaj démb tamit insister ñoom ñoom ñi fa jaar yëpp laaj na la même question bi ndax Sonko bi mu demee amul keneen ku ñëwaat ci kër yi ñu ne déedéet. ñu yëpp. oui xam nga yëpp c'est question baax mais loolu yëpp man sa man man je suis à la place de Sonko man sama nekku ci man defuma kay man defuma man massage la dama ñëw toog ñu massé ma nii 15 minutes ma def ok ñoom li ñuy wax ni yëpp ay une heure de temps c'est pas vrai même bu na euh, une heure de temps minimum def foofu non Ndeye Khady danit daaw fa def 3 minutes Adji Sarr ni une heure de temps la daan def Sonko ci waxam njëkk ni fukki minutes la leen daan may bu 15 minutes waaw waaw léegi yooyu pour prouver pour prouver <laughs> mais pour que baax na comme des comme comme ay man yu mi nga sax léegi tey rek moo leen man yu moom moo ko waxi jeex dama ñëw def ko mu jeex te am nga sax possibilité yow comme boo leen wóoruwul nga dem defal ko sa bopp indi teg ñu jox la kii bi euh, je peux pas le dire exemplaire ngir mi une partie nga dem yóbbul ko sa bopp yow. ci ko wóolu échantillon yi. koo wóolu après nga indi ko nga teg nga dóor mu daanu waxi jeex kon sax xëy na du yegg procès.